yaa xayra dayfin ataa bil bishri wal madadi ahlan wa sahlan wa tarxiiban bilaa adadi. bismillaahi rahmaani rahiim alhamdulillaahi rabbil aalamiin wasalaatu wasalaamu alaa rasuulillaah wa aalihi wa saxbihi wa man tabicahum bi ixsaanin ilaa yawmi ddiin. asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokki jullit yi mbokki taalibe ñu ngi leen di nuyu te di leen ziyaara di leen dokkal ci weer wu mag yu ñu nekk di ñaan sunu boroom tabaraka wa ñu dugg ci ak jàmm génn ci ak jàmm te yàlla sunu boroom tabaraka wa nangu lépp lu ñu ci taxawee ci ak xeeti jaamu yàlla te sunu boroom jéggal ñu suñuy rëcc rëcc ak sunuy njuumte yi ñuy gaar ci biir weer wi ci biir jataay yi nga xam ne daayira muqaddamatul xidma mi ngi koy ànd ak mbokki jullit yi xaaj bi nga xam ne xaaj bi nga xam ne moo jëm ci laaj ak i tontu ñu ciy dajale laaj yi nga xam ne mi ngi bàyyi ko ci ñiy diglu di topp jataay yi su ab lim dajee ñu woo kenn ci boroom xam-xam yi dëkk bi di gëstukat ñu gaaral ko ko ngir mu indi ci ay leeral jullit ñi mën cee jariñu kon tey jii mooy doon jataay bu njëkk bi ñu fas yéene cee ànd ak sëriñ Mbacke Abdourahmane di ko xam ne miin nañ ko ci jataay bi ci ay waxtaan yu am solo yu mu fiy def waaye tamit ci ay ubbee yoo xam ne mi ngi koy def te jullit ñu di ci jariñu bu baax a baax yàlla na suñu borom doole ko sàmm doole ko dëgëral kon ñu bàyyi ko mu nuyoo su nuyoo ba noppi nag ñu door a tàmbali liggéey bi bismillahi arrahmani arrahim alhamdulillahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashraf almursalin sayidina moolana muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain asalaamu aleykum wa barakaatu sëriñ cheikh maa ngi lay nuyu di jaare ci yow di nuyu mbooleem kilifa yi fi teew di leen ziyaare di leen naa bu ñu ziyaare ndokkeel cheikh mouhamadunil muntaqa ñaan sunu borom gën koo dëgëral gën koo sàmm ndokkeel ak ziyaar it sëriñ Afiya Buso mi nga xam ne moo jiite muqaddamatul xidma ñi taxaw ci liggéey yu am solo yi di siyaare mbooleem mbokk yi nga xam ne ñu ngi koy topp ak fu ñu mën a nekk di leen ñaanal jàmm di sàkku ci ñoom ñaanal ñu ko jërëjëf sëriñ bi ci nuyoo bu am solo bi kon dañuy njëkkee ci laaj bu njëkk bi day laaj ci alquran di wax ne laaya ji suñu borom wax ne laa yuxibu allahu aljahra bissuui muy laaj laaye ji lu muy firi waaw jërëjëf jooju nekk ci suuratu nisaa li ci waroom xam-xam yi wax mooy sunu borom da cee leeral ne bëggul béral aw ñaawteef lu yàlla bëggut lu ne nag amul solo amul njariñ lu ñaaw daal kenn waru koo def kenn waru koo fésal laa yuhibullaahu ljahra bi suu bi suui min al qawli la wax ndax ñaawteefi wax moo gën a woyof ñaawteefi jëf ginnaaw bëgguñ fésal siiwal ñaawteefi wax kon rawatina ju jëf mu ne xanaa kenn kuñ tooñ mel ni nit koo xam ne dañ koo tooñ moom may nañ ko mu fésal aw ñawte loolu boroom xam li ci wax mooy nit koo xam ne dañ laa tooñ ëpp la doole dafa la lu dul noona sañ ngaa jàmbat loola ca kaw ki la tooñ nga wax la mu def bu nit nekkee ab sàcc nga ne ko ab sàcc daa sàcc sa alal nga ne ko ab sàcc la wala ab tooñkat la wala kàccoor la wax ko ca kaw jooju ngir tooñ bu la tooñ mm-hmm. lislaam du la ci tegi daal doonte nag nga bañoon koo def moo gën ndax wax na feneen ne wa jazaau sayiatin sayiatu mithluha waaye fa man afa wa aslah fa ajruhu ala allah kon siiwal aw ñaawte dañ ko tere fépp kenn lañ ko may te bañ koo def mu gën ki ko may mooy ku ñu tooñ moom mu béral tooñ ga ngir béral tooñ gi ngir euh, wane ne dañ koo tooñ ak it ñaan yàlla képp ko def loolu sañ na ko sañ naa ñaan yàlla ki ko tooñ wax ko ca kaw tooñ gi mu ko tooñ mu béral ko ñëpp xam ne kii ab tooñkat la mooy def nangam waaye kooku nag dañ koy sañ sañ nag mu bañoon ko def mu gën waaye bu ko defee nag dara du ko fekk ñu war a dégg ci loolu kon keneen ku dul kooku def aw ñaawteef wala fésal ko ku ko def def nga loo xam yàlla bëgg ko te lu yàlla bëggut amul njëriñ loolu nag jamono yëpp lañ ko war a moytu rawatina jamono yi tasum xabaar mi nga xam ne tey nit ki boo xësee fësal aw ñaawteef mën naa dem ba jëmmi jamono mu bëgg loola dañ te dootu dañ ndax dana dugg foo xam ne àdduna jëpp ko yëg bu njëkk fësal aw ñaawteef mu ngi yemoon ci wax ko ci penc mi wax ko ci kër gi ci kaw benn benn nit ñoo koy dégg léegi nag boo waxee aw ñaawteef àdduna koy dégg te mën na faa des ba yàllaa xam mën nga fay jóge lu yàgg ñaawteef fa des fa nit ñi di ko dégg loolu kon mat naa moytu bu baax baax sëriñ kii moom day laaj mu ne ndax xele boo xam ne ràññee na danañ koy digal mu woor ak su tàmbali woon a woor ba ci digg bi yëg na léegi mu kàllaf la ndax dañ koy digal mu woor wala déet waaw ci mazhabu malik bi ñu nekk de moom dañuy wax ne daa bokk ci charte yi tax woor war nit mu nekk mag ñaari charte la wax ne mooy charte yi tax woor war nit mooy nit ki nekk mag te mën a woor ku wéradi ba mënta woor wàcc na ko gone woor warugu ñoom nag dañuy wax ne gone woor waru ko te deesu ko ko digalit bokkut ak julli mi nga xam ne moom dañu bëgg bu tàmbee bu duggee ci juróom-ñaareelu atam ñu dugg ko digal bu tàbbee ci fukkeelu atam ñu digal ko ko bu gàntoo sax ñu bàcc bàccal ko bu fekkee ne bàcc bàccal ga dana ci am njariñ waaye dañuy wax ne koor neexut tàmm te ñaareel ba it mën naa jeexital ci ak wér-gu-yaram waaye nag su ko bëggee def te lor nekku ci moom dee ko ko teree ndax goney saxaaba yi ridwanullahi alayhim daanañ di woor te kenn daw leen ko tere kon daal xëy na di ko ci gëtan di ko digal lañuy tere waaye bu coobare woo di ko def te nga yëg ni wàññiwu ko dara moom ak lu baax la kon dee ko tere waaye dal dee su ko digal mm-hmm. léegi nag su demoon ba baaleex ci diggu weer wi bis ya ci des la ko moo ko war ndax woor waru ko woon bis bi mu baalaxe bu doon bëccëg la bëccëg ba woor waru ko ndax bi woor di war fekk na moom mu nekk muy gone kon fekkoon waxtu wii la baalex dañ naan bis li ko tàmbalee suba la ko woor di war ba weeru jeex waaye la weesu moom waru ko woon kon wàcc na ko du ko fay bu ko defoon it aw yiw la waaye bu ko defoon deesu ko topp jërëjëf sëriñ bi kii moom day laaj mu ne su fekkee ne dañoo jàpp ne penkukaay yi dafa wuute réew mu nekk ak penkukaay mu ne kon nan la ñuy wooree ak ndax koo xam ne Sénégal la dëkk waaye dafa dem ci beneen réew ndax day sukkandiku ci gisug waa réew mooma wala day sukkandiku ci gisu réewum Sénégal mi bàyyi ko. waaw xam nga mbirum weer moom wuute gu bari moo ci am bu dee ci mazhabu Malik bi ñu nekk ñoom dañuy wax ne wuuteeg fenkukaay yi ñoom jàppuñ ko. dañuy eh, jàpp ne barab yépp fu fi weer feeñ ñépp mën nañoo woor lu dul barab yu soree lool barab yu soree lool dañ koy misaale li tam diggante Andalus ak Xuraasaan nga xam ne mën na fukki junni kilomètre ak nangam bu dee yu soree noonu nag ñoom dañuy wax ne ñoom kenn waru cee roy ci morom kenn ku nekk daa yor war yor gisu boppam loolu mooy bu Malik bi ñu nekk kon day mel ne suñ gox yi moom li jaadu woon réew yi nga xam ne ñoo denn te waxtu yii fi jant di soo sorewuñ fu fi weer feeñ ñeneen ñi buñ ko yëgee daleen leen war a war dañoo war a woor buñ tënkoo ci mosab bi dañuy war a woor bu ne nag beneen barab boo xam ne soree na ba nga xam ne fenku yi bokkut ci mosab bi ñooñu bokkuñuy bokkuñuy weer kon ak lu ci mën a xew nit ki bu ndëkkee senegal tukki fa nekk na ànd ak ñoom ca seeni woor moo gën a jàppandi te moo gën a dëppook jubluk sharia la saa boo nekk ci barab daal ni ki nga xam ne bu julli jotee ñoom ngay àndal di julli bu woor jotee àndal la ñoom woor bul wax ne man sama réew rek lay déglu te mën naa am sa réew ak foofa bokkuñ ay fenkukaay jan weer yi mën naa feeñ fii te du feeñ foofa loola Mawlana Cheikh Mouhamadul Mourtada radiyallahu anhu yitteema woon lool bu ma saa ni génn wax na ne da ko daan digal nit ñi dina ci soññi taalibe yi fenn fu nekk nañu ànd ak ña fa nekk ci ay jullit di seeni weer yi bu ñu ko gisee woor bu ñu ko gisee woor yi loolu moo tax bàyyi xel la sëñ Cheikh euh, mbokk mi day laaj mu ne ndax dagan na ci jigéen joo xam ne dafa toll ab diggante wala muy nàmpal ndax dagan na mu dog bañ a woor ak ndax su dogee day fay boole ci kafaara wala fay rek lay def waaw jigéen de bu tolloo ab diggante ragal loru moom wala doomam sañ naa dog bu ragalee alku sax nag day war a dog maanaam bu ko docteur xamale ne ko boo wooree baaxut ci sa wér-gu-yaram mën na laa lor mbaa lor li nga ëmb dog day war ci moom bu ko defee saa bu dee ba am jàmm buy fay day fay rek jigéen ji nàmpal nag yor doom ji nàmp te bu wooree doom ji doom lum lu nàmp te amul neneen lum koy def amul keneen ku ko nàmpalal wala bu ko amee it amul lu ko fayee su boobaa sañ naa dog ngir nàmpal doomam su demee ba doom ji fer wala mu dëgër muy fay waaye buy fay nag bis bu set da koy boole joxewaale mudd joxewaale lu tolloog liibar ak xaaju genn waa liibar ci ceeb bu dee fii ñu nekk bu dee fii ci Sénégal bis bu set bu fekkee fanweeri fan yépp la wala ñaar fukki fan ak juróom-ñeent lu toll noonu ci ay mudd war na koo joxe boole kook fay bis bi bu fekkee ne aji nàmpal ji la. Euh, kii moom day laaj mu ne ndax dagan na ci ku woor muy jëfandikoo ay pikiir ak ndax am na yenn pikiir yoo xam ne mën naa jeexital ci koor wala déet waaw am na pikiir yoo xam ne li ñuy tudde al ibar al mughazziya pikiir yi nga xam ne bu nit lekkut te ba nar loru moom lañ koy samp ngir mu taxaw taxawaayu lekk ak naan pikiir yooyu day dog koor amma yi nga xam ne dañ koy pikiir ci yaram rek ngir xay na garab goo xam ne dañoo bëgg mu gaaw a àgg ci deret ja ñu jaare ko ci yaram wi wala jaare ko ci sidit yi yooyu yëpp dana jàmm waaye yooyu du yàqu koor ndax yooyu moom doonut mënta taxaw taxawaayu lekk kuñ ko pikiir du tey nga ajowoo lekk waaye bi ci li ñuy samp nag nga xam ne moom day taxaw taxawaayu lekk nit ku yi ba sonn lool lekkut léeg-léeg ñu xam ne kii kat boo ko doon jox lekk boo wutul dana yeex dañ koy sampal loo xam ne lekk la ci moom fa lekk ga jëm lay jëm loolu moom day yàq koor képp ku wéree di ñu defal ko ko su su su su wéree war naa fay bis booba waaye nag ginnaaw wéree la fay rek moo ko ci war kii mu ne moom ndax ku wóor dagan na muy may deret ak ndax su fekkee dafa woor tawat ñu war ko defal ay analyse ñu jël ci deretam ndax loolu dina dagg na walla déet waaw yooyu de boroom xam-xam yi dañ ko yégal ci namputal nga xam ne génne deret la bu fekkee ne ragalu ci loru maanaa nekkul ku néew doole nga xam ne bu ko defee mën na caa doxi xëm ba kooram yàqu wala yu mel noonu kooko se mën na ko def kon mën naa maye deret mën naa jël deret ngir analyse ci bëccëgu Ramadan waaye bu ragalee yenn ci yooyu nag li gën mooy mu nekk ba dog door ko def waaye daal bu ko wér-gu-yaramam ak dëgëram mayee nga xam ne leer na ko ne bu ko defee du ko wàññi dara su boo dara nekku ci du yàq koor gi moom kii moom dee laaj mu ne lan mooy atteb koo xam ne dafa war a fay war a kafaara am na daal ñetti koor yu jàll yoo xam ne nii war na cee fay war cee kafaara defu ko ba beneen koor ñëwaat fekk si waat yi jàll kooku de mën nañu jàpp ne bu fekkee ne amul ngànt nit ku sàgg na ngi noonu kuy foyee ndigal yàlla ngi noonu te bàyyiwut xel yàlla ci sañ-sañ yàgg dogal yàgg bu ko neexoon loolu mu topp ko kon weer wi gi ñëw day woor koor gi moom bu jàllee nag mu fay yaweesu yépp te bu mu cay fay bu ne bu fekkee ne sàgg rek la woon bis bu ci nekk dana ko booleeg joxe mudd boobu ñu wax bis bu nekk dana ko booleeg joxe mudd bi nga xam ne bu dee weer wi lépp boo ko doon seet fi mu ne fukki kiloy ceeb ak juróom-ñeent du ko sori bu dee fanweeri fan loolu lay joxe bu dee ci ñetti ñetti at la kon ñetti fukk ak juróom-ñeent dana ko joxe boole kook nag fay bis yépp lan mooy àtte bi jëfandikoo yi pâte dentifrice ak jëfandikoo tuufaay yi ñuy def ci bët wala garab yi ñuy toqal ci nopp su fekkee ne ki koy jëfandikoo day yëg caf ko ci bëli gi mu ne ndax loolu day yàq koor gi wala déet waaw ci mazhabu Maliki yooyu yëpp dañ koo sib ndax lu ci nit jëfandikoo bu ko yëgee ci ak boleem kooram yàqu na dante dañuy wax ne atteb socc bu tooy la dañuy sib aji woor ji di soccoo socc bu tooy socc bu tooy day am ndox te ndox moom mën na rëcc jàll bu agsee ci bole gi day yàq sa koor toqal yi ñu toqal ci bakkan wala ci bët wala ci ay nopp yooyu yëpp ay bunt la yoo xam ne dafa jokkaloo ak boli gi saa bu ci àggee nga yëg ko xamal ne sa koor yàqu na bu fekkee ne bëccëg nga ko def bu fekkoo da nga ko def ci guddi gi nag jamono yi nga xam ne booba jàpp jotagut moom boo xëyee yëg ko it wàññiwu dara waaye li ñu bañ daal mooy nga def ko bëccëgu ramadan moo tax yu mel noonu lu ci gën bu fekkee ne nangu nañu def ko guddi masalan koo xam ne dafa day tuufu ñu ne ko na koy def ñetti yoon bu mënee soppi waxtu yi def ko bu dogee ak buy tëdd ak bu njëlee bu fekkee nangu loolu baax na bu dul loolu nag nga xam ne bëccëg rek la ko mën a def te bu ko defut baaxut ci wér gu moom sañ na koo def saa bu yëgee caf ka gi xam ne bis booba dog na bu jàllee mu fay waaw fay rek ku ci war ndax kuy faju la duggut kooram ngir ba coobareem wala bànneexu bakkanam kii moom day laaj mu ne ndax buddi ab bëñ wala setal ab bëñ day yàq ak koor waaw ci masa bi dañuy sib faj faj faj ab bëñ ci bëccëgu ramadaan ndax ñaare bu ko nit ki def garab yañ cee def ñaare dana defe dana jafe dara bañ caa jàll te su ko defee lépp lu jàll ba agsi ci bële gi rek day yàqu koor moo xam garab yi mu ci def la wala yi muy àndal su ko defee dañuy wax ne yu mel noonu la ca gën bàyyi ba dog bu fekkee ne mën naa nekk bu fekkee ne mënta nekk ndax ku fajkat bi du faj guddi te jàngoro ji metti metti goo xam ne mënta muñ kooku it dem fa ji bu dara jàllee mu xam ne kooram dog na mu fay bis booba waaye du am bàkkaar ndax dafa wéradi di faju kii moom day laaj mu ne ndax dagan na ci jigéen muy jëfandikoo loo xam ne day tax du gis baax ngir ba ngir mën a woor weeru koor wi waaw moom de li ci waroom xam-xam yi wax mooy bu fekkee ne am na lu ko leer ci ne du ko wàññi dara maanaam du ko jural jàngoro léegi léegi du ko jural ca kanam nga xam daal boroom xam-xam xamal na ko ne jëfandikoo yi nga jëfandikoo ba baax bi du ñëw du la wàññi dara moom tey du la ko wàññi boo lëgee suba sañ na ko waaye nag gënut ndax jigéen ji yàlla sant ko mu woor bu gisee baax yàlla sant ko mu dog jamono yooyu muy dog ci ndigalu yàlla nekk ndax sunu borom mi ko woor la woon moo ne ko boo gisee baax dogal moo ne ko boo gisee baax bul jullee di kon bàyyi gi mu bàyyi julli ak bàyyi gi bàyyi woor ci ndigal la nekk kon nag jaamu yàlla la li gën ci ab jullit moom na bàyyee boppam yàlla ndax yàlla ko bind noonu am ay bis yoo xam ne dana ko mën a woor mën a julli am bis yoo xam ne du mën a woor du mën a julli na bàyyi boppam yàlla rek saa yooyu gisee baax ci biir dog xam ne yàlla ko dogloo ca dog mu dog jaamu yàlla la ndax daa daa def ndigal ndigal li moo doon mu dog dog na day am tuyaaba insha allahu taala waaye du tee nag bu ko defoon te lor nekku ci moom koor dana baax du yàq dara ci kooram kii moom nee na ñaari nit a ngi ñoo xam ne dañoo bokk di tukki waxtu julli jot nee na kenn ki jiite wàññi ki ci des na mu mottali ak julleem muy laaj lan muy àtteb sharia ci lool waaw dafa mel ne ki jiite wàññi moom def na sunnaam ndax ab aji tukki bu fekkee sarti wàññi daje na ci moom mu wàññi moo gën mu matal loolu nit ñu bari duñ ko bàyyi xel aji tukki ji sarti wàññi daje ci moom mu wàññi julli moo gën matal julli ndax mooy ndigalam keneen ki roy ci moom matal nag bu fekkee ne moo ko tey jublu ko bàyyi na sunnaam daf na li julli gi baax na de ndax nit ki sunnaam mën naa doon wàññi ba noppi moom mën ne day matal waaye santuñ ko woon loolu li gënoon daal mooy mu wàññi waaye su matalee nag te fekk matal la yéene woon waaw baax na amma su yéene woon wàññi ba noppi matal nag moom julli ko du baax xëy na nag muy koo xam daa fàtte woon na ci tukki la ba yéene wut wàññi aji jiite ji mu yéene wàññi bi mu amee ñaar ak sëlmal moom mu xam ne yéene wutoon wàññi kon sëñ te wàññi su dee lu mel noonu dara nekku ci kii moom nee na benn jigéen a ngi joo xam ne ab chrétien la dafa dugg ci lislaam tuub baayam faatu mu ne ndax kon dina mën a doon baayam waaw sëriñ Cheikh ni nga ko xamee daa bokk ci sarti donnante ci lislaam hmm. ñaar ñii donnante bokk diine bu diine wuutee donnante du am ak lu ñu mën a bokk kon doom ji bu tuubee dugg ci lislaam moom léegi ab jullit la mënta doon baayam baay mënu ko doon kon baayam faatu woon na ko bàyyee ak mbokkam yi tuubut ñoom te moom féete yàlla kii nee na leg léeg de gis ci yenn ñam yi nga xam ne dañ koy defaree ca bitim réew te doonu réew jullit ñu bind ci xalaal muy laaj ba xam xalaal jooju lu muy tekk ni ki noonu tamit yenn tànk ginaar yi nga xam dañ koy boole ci yenn kees rek indi ko noonu muy laaj ba xam ndax loolu ab jullit mën na koo jëfandikoo wala déet waaw jullit de dañ koo sant mu rafet njor buñ la indilee aw ñam ne la dagan na xalaal mooy dagan ndax xam nañ ne jullit ñi daa am lislaam nu mu leen sante li ñuy lekk bu dee bu dee yàpp la nañ ko war a rendee ak yu mel noonu am na ci ñoo xam loolu lañuy bàyyi xel wax ne ngir wan ne jullit ñi lii kat dëppoo naag ni seen diine santaane xëy na loolu la boobaa rafetal njort ci ne lool la bu ci sax bu ci sam xel dalu nag sañ nga bàyyi moom beneen bi ci des mooy ay tànk ginaar wala yu mel noonu ak lu mën a doon bu fekkee ne réew moom jógee ay ahlu lañ nañu rafet njot ndax sunu borom moo ne woon wa taamul ladina utul kitaaba xillul lakum ñam wi nga xam ne ci ahlu kitaab la bàyyi ko ñam woowu dagan na ci yéen lu dul nag dangaa dem ba xam ne niñ ko reddee dëpp wut ak sharia loolu moom saa boo ko xamee sañutoo ko lekk ndax sa sa mbokkum jullit sax bu rendi woon dara te nam ko rendee dëpp wut ak sharia sañutoo ko lekk waaye boo ci xamul dara te ci ahlu kitaab lañ sañ nga ko lekk bu jógee nag ci ñoo xam ne ay yéefar lañ amuñ jenn diine ñooñu moom seenu ren di medd la sañoo ko lekk euh, kii day laaj mu ne ñii seen baay ba muy faatu mi ngi doonoon ci atum 1999 fekk boobu ñoom ay gone lañ nee na seen nijaay moo ñëw dimbale seen mag ju góor ji ngir ñu jënd kër gi nee na kër gi booba dañ koy door a tàmbalee tabax ak àggagut seen mag ju góor ji moo ko àggale ñoom ñëpp ñu dëkk fa ba bis ni ki tey seen mag ji nag dafa tabax ay bitig yoo xam da koy luye nee na waaye nag kenn ci rakkam yi am ku ñëw na ko day na ko jox wàllam ci kër gi mu nekkoon bu ko dee jox wàllam ndax dañ koy xayma ci keroog ba ñuy jaay kër gi muy atum 1999 wala dañ koy xayma ci jamono ji ñu toll nii waaw Serigne Cheikh loolu de jafe-jafe yi ci am bokk na ca bàyyi dara bañ koo miraas dana jur lu mel nii dem ba jëmbi jamono ña ko séqoon déggoo di moo tax lu yàlla santaane ku yabu rek di ci tënku sunu borom moo ne bu nit faatoo nañ ko miraas kon li gën mooy bu nit faatoo ñu miraas ko hmm. ndax loo fi mën a bàyyi it man nga ko dënk ay nit ñu déggal la waaye ñooñu bu ñu demee ñeneen ñëw ñoo xam ne xamuñ la mën nañ caa def lu ne ak lu ci mën a xew bu fekkee ñoom seen nijaay dañ ko jëndal ñu bokk ko kon ñoom ñoo bokk suuf sa benn bi mu ci def nag benn mu def ko ngir ñëpp wala mu defal ko boppam waaye suuf si moom moom ñi mu bokkal ñoo ko bokk kon bu njëg yi yëkkati ko ñoom ñëpp la yëkkati kon bu ñu ko dee miiras dañuy xool tey jii lu suuf si jar ñu xayma ko ci bu fekkoon nag dañ ko ko jaayoon moom ne ko teggil see rek ameel nga diw nangam ameel nga diw nangam ameel nga diw nangam su boobaa xaalis la ameel waaye ni mu waxee daa mel ne. dañ dañ leen ko jëndal boole leen hmm. kon ñoo bokk suuf si kon suñ demee ba mu bëgg leen a fay dañuy xayma tey jii li muy jar kenn ku nekk ñaata mètre la ci am bu ko bëggee jënd mu jënd ko jox leen seen xaalis waaye du ne dañ koy xayma ci lañ ko jënde woon ci at ma at ma seen bàyyi faatoo ñu ñu doonoon ko hmm. euh, kii moom nee na ndax maamum bi sañ naa jàng faatixa wala sax lu dul faatixa jàng ko tari bu gaaw rek balaa imaam be noppi waaw xam nga daa bokk ci sunnay julli maamoom daa bokk ci ay sunnaam bu ilimaanam di béral mu yalu mu noppi bu ilimaanam di béral mu noppi insaatu maamumin la daa ijhaari imaamihi noonu ko sëriñ bi waxee saabu ilimaan di béral moo xam dégg nga moo xam déggoo waaye xam nga ne julli gii dañ koy jàng ci kaw liñ la sant yow maa moom nga déglu sa ilimaan kon di jàng faate walaw saar di ko baral jëru ko sa ndigal mooy nga dégloo loolu mooy masabul imam bu àggee nag rakkaa ya nga xam ne dañuy yelu foofu moom sopp nañ maa jàng faatiha bu deew saar jàng jàng saar bu dee julli goo xam ne dañ ko yelu mën naa jàng faatiha ku saar waaye julli yi nga xam ne dañuy béral njàng mi liñ sant ma muy sunnaam mooy mu déglu ilimaanam waaye du mu jàng kii day laaj mu ne ndax góor goo xam dafa bëgg takk jigéen mu ne ndax mën na ko tàggatal xiital ko ci boppam maanaam defal ko lu ñuy tuddee noob euh, noob njabar la te njabar genn gu dagan amul noob ak tawala ci xeetu njabar yi la bokk def nit luy tax mu bëgg lu mu bëggutoon wala mu jublu fu mu jubluwutoon loolu daganuti ab jullit te wóorutit nag ndax noonu nga ko mën a defee ba jotti mën naa def leneen moom itam ba tàggoo yow wala gi saa bu leeree rek lu ci mën na ca xew nit daal bu bëggee loolu day jaar fi mu war a jaar xam ne doomu aadama li ñuy bari bare kenn ku nekkal yàlla wërsëgal da nga ci jot li sëriñ mag bi radiyallahu daan wax wax ne soxna yi ñett lañ ci nit ki koo xam ne ba ko yàlla bind yaa tax fu mën a jaar ci àdduna yaa koy denc koo xam ne ba ko yàlla bind toxoo pexe yoo mën a daf doo ci jot ak koo xam ne dañ ca am wàll keneen am ci wàll dana jaar ci yow ñëw ñëw dem feneen wala mu jaar feneen ñëw ci yow kon jaaral fi nga war a jaar te rafetal sàkku gi la ca des nga bàyyi bopp yàlla amaa daf ay pexe nag ngir bëgg ki la jubluwutoon jublu la loolu njabar te njabar dëggan kii moom day laaj mu ne ndax ñaari ay fajar mënees na koo julli ginnaaw bu imaam bi sëlmalee suba rek nga daal di jug fajar. ci masabu Maalik li ñu taamu te mooy li li ñu gën a sukkandiku mooy buñ sëlmalee suba jullik suba kenn dootu naa fi la lu dul ginnaaw bu jant fenkee kon li gën mooy kif ñëw ci jàkka ji fekk julleegut ñaar rakkay fajar bu ko mënoon julli ci bitti jàkka ji laata muy dugg te xam ne rakkaa bi du jëkk du ko raw mën na ko def gaaw julli ko dugg waaye bu fekkee nag taxawal na julli gi te jullee ko ko day dugg ci farata ji bàyyi ba jant fenk ba yëkkatiku lu teg lu topp ay 30 minutes ginnaaw bu jant fenkee mu daal koy mu daal di koy fay naafi la googu la ñuy fay ci la yépp donte nag am na ci ngër bi ñuy wax ne bu ko defoon ci saasa it baax na mu julli suba sëlmal teg ko ci ndax ci jamono yonent alayhi salaam am na ko ku mas a def julli soo ba nag ñu si su mu julli ñaar rakka yonent bi ne ko loolu lu doon mu ne ko dama julleeku doon fajar ibnu islaam ceel ñu ne loolu iqraar la noppi gam ca noppi day wane ne dagan waaye nag daa yeneen xadis yu saxal ne ku julliwut fajar ba julli suba jot bu ko julli lu dul da nga ba jant fenk ci masab Maalik nag xadis boobu ci la sukkandiku ñoom moo tax li ñu lëngal mooy boo julli wut ñaar fajar ba suba ba julli ba noppi négal ba jant fenk nga door koo fay li tàmbalee bu naafi la daganee ba tisbaar la yem it bu tisbaar xasee jot te ko nag fàtt na dootoo ko fayati moom kii mu ne moom ndax dafa am ay bis yoo xam ne dañuy tere góor mu di ci jaxasoo ak soxnaam waaw am na ci lislaam de bis yoo xam ne dee su ci jaxasoo bokk na ci wala ay jamono la bëgg a wax jamono yi jigéen ji di gis dereti baax wala dereti meret foofu kenn du fi jaxasoog kenn du jaxasoog jigéen nit buy laf lianti kaaf tax ne ci jàkk ji di jaamu yàlla kenn du jaxasoog moom bëccëgu ramadan deesu ci jaxasoo ku armal jigéen ju armal di aj wala umra kenn du jaxasoo moom ñeenti yooyu daal dañuy tere ko ci jaxasoo ci chariat islam yi nga xam ne ku ko def xëtt nga ndigal ndax def nga loolu islam di tere mhm. Mhm. kii moom de laaj mu ne ndax jàkka mën nañ koo def lu mel ni ñaari étage wala mel noonu imaam bi di nekk ci fi gën a kawe ñi ci des nekk fi gën a suufe waaw xam naa jàkk nag li ci cosaan moom bu dee amit suuf ga mooy doon cosaan li bu xatee ñu yokku ko bu ñu ko yokk nag mën nañ ko yokk ci pegg yi mën nañ ko yokk ci kaw waaye ilimaan ji moom ne ci suuf ñi ëpp ci nit ñi ne suuf bu suuf gi feesee nag ñu door a yéeg feneen wala boog muy jàkka joo xam ne suuf gi du jàkk kaw gi mooy jàkk nit mën naa am këram dëkke ko jël kaw ko def ko jàkk su boobaa jàkka ji ñëpp mën nañ faa nekk kaw foofu wala kaw li kaw it mën nañ faa nekk di ko feesee waaye bàyyi ilimaan jàkka ji suuf gi di jàkk kaw gi di jàkk mu bàyyi suuf gi ne ca kaw nag loolu am na lu muy nuru te dañuy wax ne ilimaan bu kawee maamum lu mu tuuti tuuti te jublu ci ak rëy julleem yàqu na ñenn ca ginnaaw ñëpp seen julli yàqu kon moom mu ne ci suuf bu suuf gi feesee nag ñeneen yéeg ci kaw loolu mooy li gën mu ne ba tey ndax bu imam bi dee xutba ci julli ajuma wala ci bis bu ajuma ndax dina dagg ñu julli ñaar rakka naafila waaw julli ñaar rakka naafila daal fekk imam baa ngi xutba waaw ci bu Maalik dañuy wax ne bu ilimaan xasee toog ci minbar bi ajuma bu xasee toog ki ci bar bi la daganatut moom dañuy def dafa xaraam toog dégloo moo fi des loolu mooy masab imam Malik saa bu imaam xasee ñëw toog ci minbar bi rek nodd koy tàmbalee nodd ku ñëwati toogal ku ñëwati toogal loolu mooy masab bi nga xam ne imam Malik loolu wax euh, mbokk mi dee laaj mu ne dafa am ci yenn dëkk yi nekk ci senegal su fekkee ne jigéen moo ñaan baat dañuy laaj góor gi ne ko danga joxe nàngam ci alal mu ne waaye nag geneen góor gu ko bëgg a takk yow la ku njëkk ko waroon a joxe yaa koy joxe ngir ngir nga mën koo jën muy laaj ba xam ndax loolu alal jooju luy àtteem ci lislaam waaw bu fekkee ne jigéen ji moom moo seet ba gis ne daal sëy bi jubóotu ko xëy na te mën naa am mu ragal ne bu wéyee di ci nekk dana xañ àqam dana xañ góor gi àqam dana gàddu bàkkaar sañ naa bëgg a tas fu mel noonu nga xam ne lor amu ci la ñuy wax ate bi ñuy wax summi konte nga xam ne dañuy day fay alal ngir jot boppam loolu dagan na loolu nag ci masabu Malik waxaale bu juboo lay doon ñu ci nit ñi dañ naan rek soo ko joxee lam la joxoon déedéet ci masabu Malik summi konte alal ji amut nu muy toll góor gi ak jigéen di ñooy toog waxaale bu juboo ci nangam soxna sa bu nekk boo ma joxee nàngam mocc la soxna si nangoo joxe nangam bu ko joxee say bu tas nangam jooju nag jigéen ji mën na koo joxeel boppam keneen mën na koo joxeel waaye nag bu mu doon koo xam ne njëkk muy tas ma nga doon wax ca suuf di dox ca suuf di ko tasloo wala yu mel noonu dafa bokk ci xaram yàq jigéen ci borom këram yooyu ay salaam tëkku na ci wax ku koy def la ko la ko mën a dal waaye bu fekkee nag loolu yoram nekku ci moom yoram nekku ci da koo gis rek dimbule ko ba mu ko dimbulee mu fay alal ginnaaw bi mu bëgg ko takk ko door nekku ci dara nekku ci waaye li ñu bañ rek moom mu doon doon dara ci tasug jigéen ji ndax day mel ne kon daa yàq ab séyam ngir bëgg koo takk mbokk mi de laaj mu ne ndax dagan na ci imaam mu yàggal ab rukkoo su fekkee daay yëg ne am na koy dugg si ci biir julli yi mu yàggal ko ngir koo ko mën a dab rakka bi loolu de ci mazhabu Malik dañ koy tere dañuy wax ni deesul guddal ab rukoo ab rakka wala ab rukoo ngir koy tàbbi allahumma muy koo xam ne boo ko defut mën na la te fitna day kilifa koo xam ne heure boobu lay ñëw te bu ko rakka bi raye bu noppee teg mën na la indil ay jafe-jafe subaa nag ngir so ngir ngir musal sa bopp sañ ngaa guddal rakk guddal ko xaar ko mu ñëw wala muy koo xam ne daa xamut bis boo siggee dana ñëw daal di siggi daal di jàpp ne rakka boobu am na ko daal koy limaale ci julleem bi julleem yàqu te julli boobaa julli ko du baax te loolu nag dana jafee xam waaye daal saa bu ko leeree ne euh, kii di ñëw nit la koo xam ne moom bay boog bàyyi ko mu ñëw rek ndax dañuy xool ne kenn nit waroo waroo jiital njariñam ci njariñul mbooloo xam nga ñi nga jiite mbooloo lañ am na ci ñoo xam ne sëgg ku yàgg gi baaxu ci ñoom ndax wéruñ kon waroo jënde nekk ki ñëw ngir bëgg mu am rakkaa bi ba tax nga lor ñeneen fi ñu koy mayee rek mooy foofu ñu wax kii ñëw kat ab jaahil la boo xam ne xam na ne day limaale rakkaa bi te waru koo limaale su boobaa wala borom doole la joo xam ne booru ko boo ko xaar bu ñëwee bëgg noppi den ko diggaale waaye nag xaar ko ndax yoonu jàmm sëw jërëjëf sëriñ bi kii moom nee na dafa am armeel yoo xam ne dafa fees mu am nag jigéen ju faatu te amoon na doomi nijaayam joo xam ne ba mu faatoo ak léegi mën na ay at mu ne kon ndax fañ denc doomi nijaayam joojaam mën na sa faa denc ku jigéen kii wala déet waaw bàmmeel de bu ñu fa xasee suul nit xubus la xubus la waqf la ci moom fii ak dara lu bokk ci néew ba ma nga fa kenn du fa suul keneen mën a daganul mukk ñu sulli ay yàq wala lu ko nuru di fa sol keneen loolu bokk na ci li taxoon kilifa yi ridwanullahi alayhim santaane woon sëriñ Sidi Moxtaar ñu tëj armée li ak goon na ci léeg-léeg dañuy gas dandal ay yax suul keneen loolu daganul bàmmeel kuñ fa suul yaa moom bàmmeel ba féeg dara lu bokk ci yow mën fay des bu lépp nekkee suuf nag mën nañ faa suul keneen bu nee bu lépp nekk suuf lépp lépp maa si nekk suuf nga xam ne boo gasee dootoo gis dara dañuy xam ne rek fii dañ dencoon nañ fi nit su boobaa nag manis dafa denc keneen euh, mbokk mi laaj mu ndax dagan na ci ab jullit muy takk ci aw yaramam lu mel ni ay petaaw ay petaaw ay béjjën ay wëñ ay xaaw yépp takk ko dagaru yépp tamima yonentu yàlla moom ay salaam noon nag ku takk tamima fala atamallaahu la ñaan yàlla gu raglu la bu mata moytu ab julit mën naa saafaroo ci li ñu santaani mën naa bind alxuraan mën na koo jàng jariñoo ko am ma ay petaaw ki nangam nag li ci ëpp gërëmloo ay jinne la te yooyu ab julit wóorut jëflante yooyu kon yu mata moytu la mbokk mi day laaj mu ne lan mooy ngëneelul julli yor yor ak ku nekk fi ci senegal nan ngay xamee ne waxtu julli yor yor jot na waaw waxtu julli yor yor de mooy su jant fenkee fanweeri minute ginnaaw bu jant fenkee bu jant fenkee rek waxtu naa naafile tàbbi na ba diggante boobu ci lañ julli yor yor bari nañ ngëneel nag doy na ci rek li sëriñ bi waxoon ca masaalikul jinaan ridwanullahi alayhi ne wa man yuxaafidu duha fa innahu yaxfaduhu yaxfaduhu l mawla wa képp kuy sàmm julli yor di ko motal saa su ne yàlla dana ko sàmm yàlla dana kawel mbiram daan na fi lqiyaamati tafi thumma taqul yaa rabbi daa fulaanu hablahu lwusul li annahu xafidani fi dunya faxfadu haa huna fa faasa saaya wa in tudayyaha taqul yaa rabbi daa am si fa dayyahu lida nee na ku fonk julli yor yoor bu yomal xiyaamee moo ñëw nekk sa shafia moo lay tinu ci kanam suñu borom ne ko kii de dama sàmmoon ci àdduna yàlla na nga ko sàmm musal ko boo ko sàgganee nag lay ñaan yàlla ne ko yàlla na nga ko sànk dama sànkoon Euh, sàmm ko nag mooy nga wutal ko waxtu bu jotee nga julli ko gën jaa néewu ñaar rakkaa doon gën jaa bari juróom-ñett juróom-ñett yoo xam ne ñaar ngay julli sëlmal julli ñaar sëlmal loolu lu am solo la li li ciy dimbali ni rek mooy ci biir yoor yoor bi nga tànn ci waxtu woo xam ne ci nga koy def man ngay daal man daal saa yu fukki waxtu jotee dinaa julli ñaar rakka yor-yor bu fekkee ñaar rakka nga julli fexe ba sax nag sa kem kàttan. mbokk mi day ñaata jaaro moo dagan ci góor mu sol ko waaw ci lislaam de benn jaaro lañ may góor sol ko bu xaalis boo xam ne bu mu ëpp juróom benn gram benn jaaro xaalis boo xam ne bu mu ëpp juróom benn gram moom la lañu may ab jullit bu góor waaw bu dee jigéen nag jigéen ay takkaay ay mbirama waaye góoru moom ay takkaayam yeneen la may nañ ko laal mu takkub jaaro ndax sunna la waaye na doon jaarab xaalis bu mu doon leneen bu mu doon weñ bu mu doon or bu mu doon leneen te bu mu ëpp juróom benn gram kon bu ko yéesee baax na bu ci yemee baax na waaye benn jaar lay doon it mën na koo takk ci loxol ndeyjooram mën na koo takk ci loxol càmmoñ donte yim ci salaam li mu doon takk jaaro ci càmmoñu mu ëpp na waaye ñaar yépp mën a nekk kii moom day mooy àtteeb koo xam ne dafa muucu lu tuuti ci li ñuy wax reculés te xamul na sax lu xaraam la waaw bu wéree ne xamu ko woon dey yonent bi noon salaam noonu na rufia an ummati alxatau wa nisyaanu wa mastukrihu aley li nga xam ne njuumte ma la ko tax a def wala fàtte wala dañ la cee ga yàlla dala koy jégal waaye nag ab jullit war naa farlu lu taaje rek nga ñëw naan loolu leerul war naa xool li nga naan lu doon nit day tey suñ la taajee dara nga xool ba xam lii ndax lu mu doon ki ku fa teg ne ko lii lu mu doon bi ci desit nag këru jullit lu fa rek lees di wut xëy na man naa am daa doon fenn ganaay bu dee këram moom wuru ndax sàngara la te sàngara fajoo ko dëgganu fajoo ko dëgganu gis léeg la ñuy wax ne la ñoom naanuñ ko waaye dañ koy fajoo yonent bi salaam moo wax ne yàlla mi ko araamal mu araamal léppam yàlla bu araamalee dara day aram léppam sàngara dee su ko fajoo dee su ko diwoo dee su ko nangam ndax sobe la fenn képp lañ mayee ak jur bu jëfandikoo ko te daanaka loolu amatul mooy jàllale fot am ndaw ko ndaa bu jëfandikoo lu ëpp ndox jegewu fa dara jegewu fa sàngara doo ko fa nekk benn mu naan sàngara si mu jàll mbaa mu téye noonu faatu kon na ko naan bakkanam des fa bakkanam mën a mën a mën a mën a mucc hmm. fu mel noonu rek lañ ko mayee jàllale fot bu fa nekkul lu moom kii moom nee na li ñuy tuddee al ayatul muhkamaat ak al ayatul mutashaabihaat lay laaj ba xam boroom xam-xam yu jiitu yi wala nit ñu baax ñu mag ña lu ci doonu seen taxawaay nuñ ko déggee woon. waaw waaw sëriñ xam nga alxuraan ñaari xeeti aaya yi moo ci nekk laaya yu leer nañ yoo xam ne la ca borom bi jublu subhaanahu wa taala xam nañ ko mooy ayatul muhkamaat yooyu sax nag mu ëpp na hunna ummul kitab la wax am yeneen yoo xam ne nag daa jamtal ay maanaa yu wuti man maanaam dégg ko mën naa bañ mën naa jafe yooyu nag war raasixuuna fil ilmi mi kullun min indi rabbinaa la moo ci moo ci moo ci war gëm ne ci yàlla bàyyi ko imaam Xasaali am na tënk bu am solo bu mu ci def wax ne aayaat yi nga xam ne mooy mutashaabihaat nga xam ne dégg ko daal yombut day jamtal ay mbir li ci war ab julit bi nga xam ne moom julitum neen rek la mooy bu ko di na ko sellal xam ne ci yàlla bàyyi ko na ko dëggal xam ne dëgg la na nongu ne xamut lu muy tekki na ca noppi téye ci aw làmmiñam waaye nag bu mu ne kenn xamu ko it nag bu mu ne kenn xamu ko na nangu ne moom xamu ko waaye mën naa am ñeneen xam nañ ko ndax lu umpuwaay rek mën naa am yàlla xamal ko keneen taxawaay yooyu moo ci war a jullit bi kon nangu ne ci yàlla la bàyyi ko waaye nag xamut lañ ci jublu dëgg-dëgg ndax du yàq dal sa jaamu yàlla ginnaaw yi mu wax ne muhkamaat yi mooy umul kitaab li ëpp solo ci lu ñuy jàmm yàlla moom lenn lëntu ci kon yeneen aaya yi nga xam day jamtal ay maana yóbbu ko nag bu ci sonal sa bopp neel ci yàlla bàyyi ko yàlla xam la mu ci jubluwaaye dëgg la man nag xamu la lu mu jublu néewu it kenn xamu loolu moo ci war ab jullit sëñ Cheikh euh, kii day laaj mu ne koo xam ne dafa yor soxna bëgg takk ab ñaareel mu ne ndax day war ci moom mu diisoo ak aawo bi balaa muy takk ñaareel Euh, diisoog awam jaru ko nag waaye nag nag ko yëgal diisoo moom ñaaree day doon koo xam ne da ngay séentu ci moom digal mu naal ba la bàyyi daa mel ne soxna yi moom li ñuy baax baax moom wujjee du seen mbir li ñuy baax baax wujjee du seen mbir koo ci diisool moon la ci sikk soo xam ne boo wut da bàyyi waaye nag mën nga leen yëgal moo gën nag nga dem takk ba ñëw di làqutu loolu it góor du ko def góor moom day xam ne dama war a takk soxna mu xam da nga ko takk ba ngoro ba ngoro gi dëgër ba xam ne yàqu weesu na ca mën nga ko yëgal soxna si ne ko ñaan ci boo ko mënee sedd it wàññiwul dara. Eh, ci laaj bi ba tey day laaj na ndax eh, jigéen mën nañ koo takk mu tegal ab charte góor gi. waaw may takk ci kaw nangam. waaw jigéen sañ na loolu. am na fu dëkk boo xam ne soxna yi dañ naan laa saabiqa wala laaxiqa mm-hmm. boo dëkkee den ngoro boo nangoo jël boo nangoo bàyyi. loolu mooy li ñuy tudde fii monogamie nga xam ne dangay juboo ci ne benn soxna nga yor loolu nag góor waru ko def moom fekkee ne góor góor yàlla moo santaane ñu denc ay soxna santaane jur ay doom lu dul li waxoon ne wenn xiftu mu allah taxdilu xanaa koo xam ne daal yëg na ne moom matut lim doon ak doya day ngi ci moom koo xam ne mënta tegu ci yoon kon na yam ci benn waaye wax ne jubóog sa soxna ci ne ci yow laa yem ndax boo ko waxee sa soxna wax la ko nga nangu al muslimuuna ala shurutihim da nga war a tënk ci sart ko du nag takk dagaan ci yow waaye bis boo ko defee nag bu neexee soxna si mu dem yoonam ndax yéen a ko sart dem boo ko xëttee boo ko neexee tas ko te booba yàqu tooñ te yu mel noonu jàpp naa ne amul solo lu ko fi jar nekk fi nag ba tey day laaj ne euh, lan mooy àtteeb euh, jox jigéen ji ab jaaro wala lu mel ni ab lam laataa nga koy takk bu fekkee dañ cee jublu roy ñeneen ñu dul ñun bokkuñ diine de jaaduwut ndax yooyu aaday ñeneen la waaye nag bu fekkee jublu rek jox ko addiya jox ko addiya ngir wan ko ne ko ma dama koy firndeelee sama bëggeel loolu dara nekku ci na li ma bàyyi fel yooyu nag mooy addiya yi ñuy ci ngoro mu leer na la ngoro gee tax bu ñu nee ba ngoro ko yàqu bu ne soxna si moo yàq ngoro gi dañoo war a delloo addiya yépp bu fekkee góor gee bàyyi nag soxna sañ ko lekk yooyu mën na bàyyi xel léeg gis ko joxe lu bari ngir yaakaar ñu may ko ñu dem ba yàgg ñu jekki-jekki ngant am bu ngant la bàyyi ko ci jigéen ga wala ay bokkam lañ joxe woon ci ay cadeau su ko góor ga bëggee nangu dañ ko war a delloo bu ko laajee dañ ko war a fayaat ndax joxewu ko woon ngir yàlla bu fekkee na góor gee bàyyil boppam moo ko joxoon bàyyil boppam nag du ko sañ a laajaat kii moom day laaj koo xam ne julli fajar daf ko raw ak jullik suba mu ne bu dee fay ban la jiital waaw loolu da ci masabu imaam Malik dañuy wax ne jiital farata ji ma war na julli farata ba noppi door a fay naafile gi donte jant daa fenkit ba waxtu naafile daganit li gën mooy na jiital farata ji bu noppee julli naafile gi hmm. mbokk mi day laaj mu ne lan mooy àttat koo xam ne day julli wax nee na ci misaal imaam bi dafa sujjóot benn sujjóot mu ne ko des na benn muy laaj ba xam wax googu mu wax luy àtteem ci julli gi bu fekkee imaam da ko def rek mu wax ko loolu teel na des na benn teel na subhaanallah la war a wax bisaam daa waxoon ne bu dara xewee ci biir jullit na ngeen sàbbal yàlla bu nee subhaanallah ilimaan dana xam ne kon daa juum waaye nag bu fekkoon dane subhaanallah subhaanallah ilimaan xamut lu muy wax jaxasoo mën na ko ne des na benn des na benn jooju du yàq julli gi ndax dañuy wax ne wax joo xam ne jëmul ci julli gi waaye day defar julli gi du yàq julli su bariwut bu fekkoon na dafa nekk di waxante joxalante kàddu mun naa ko ndax leer na la nangam nangam julli gi day yàqu waaye bu fekkee benn yoon la ko wax ne ko des na ginnaaw bu bu mu sàbbaalee te xamu ko mu xam ne des na mu jóg àggale su boobaa day sujjóot ba'da salaam waaye julli gi baax na kii moom nee na day gis ne bu ñu noddee dañuy toog lu toll ci fukki minute ak juróom door a taxawal julli muy laaj xaar googu ñuy xaar lu ko waral waaw ndax nodd woote la yëgle la woote la mooy da ngay yëgle ne waxtu julli bi jot na kaay leen julli si da dégg ci biir julli gi noddukat bi danaan xayya ala salaa mooy kaay leen julli si ay nit nag nga woo leen daal gaaw julli bala ñoo ñëw loolu bokkul ci ak ak ak yow di ak yow dañoo bëgg nga nég leen moo tax dañuy bëgg suñ noddee ci jàkka ñu nekk ab diir boo xam ne nit ñi danañ mën a wàcc seeni kër nga xam ne am na koo xam ne daa waroon jàpp mën naa jàpp sol ay yéreem ñëw ci jàkka ji mën a julli si waxtu wi gën a xat ci waxtu yi mooy timis waaye li muy xat-xat teewut war dañoo nekk foofu ñu bari ci nit ñi dañuy jàpp ne moom timis fu nodd gi daanoo rek dañoo war a daal di julli déedéet demewul noonu ak woote la xëy na moom li ñuy nekk mooy gën a néew bu dee yeneen julli tisbaar moom mënees naa nekk fukki minute juróom mënees naa nekk ba ñaari fukk ba fanweer mi ngi aju ci barab bi nga nekk ak ñu julli si fi ñuy jóge bu ñu xawee sore te mu leer na day ñëw li gën mooy nga nekk ndax loolu lépp ci muxtaar mi la moo taxit bu fekkoon te da ngaa ne ci barab boo xam ne cib àll la kenn ñëwut fu nodd gi daanoo bu leen neexee julli ndax foofu néguñ kenn naka noonu bu doon jamono joo xam ne jàkk ji daa fees dell njëkk ñuy nodd nga xam ne boo doon nëgee it ku ñëw du am fu mu dugg lu mel ne màggale yooyu foofu bu nodd gi daanoo mën nañu julli ndax foofu nëg gi amul njariñ waaye fépp foo xam ne nëg nit ñi ñëw danañ mën a ñëw julli si buñ noddee ci jàkk wala mbooloo mu ne ci barab di xaar ñeneen mbooloo dañoo war a nekk ab diir ba ñëw ñu mën ñu doon a julli kii day laaj mu ne xele boo xam ne dafa juddu ba ñu tudd ko am ay fan mu ne kawar gi ñu xayma ko ci alal ngir war koo saraxe mu ne ndax bu ñu ko saraxee ci waxtu woowu dana wér fekk na tudd nañ ko ba noppi ba mu am ay fan. waaw li doon sunna dañu santaane ko mooy bisub tuddam bëgg gone bu juddoo ba am fan ñu tudd ko rayal kom xar wala ab gàtt wat kawar ga peese ko nu mu toll ñu saraxe ko ci xaalis mbaa ci or loolu moom bokk na ci ñu sopp ci ku ñuy tudd. ci bu Maalik nag bisub juróom-ñaareel bu xasee jàll tudd jàll jàll na moom moom ngénte li ñuy tudde ngénte ci juróom-ñaareel fan la bu jant bi sooyee te amoo ko wala defoo ko wàcc na la waaye jëmmi wat gi moom ñu ngi ko santaane ci bisub juróom-ñaareel fan bi nañ ko wat bu dee góor ak bu dee jigéen ci mazhab malik dañ koy wat saraxe diisaayam ci xaalis ci or walla ci fidda kii moom de laaj mu ne doom joo xam ne dafa njëkk a faatoo baayam lu toll ci ay at mu ne ko ndax buñ dee miiras baayam dañ ko coy jox wàllam benn bis bu ko njëkkoo faatoo baayam ndox doon daa bokk ci sarti donante kii doon mujj fii ki muy doon donte mujj gu ñu nettale maanaam daa faatu bàyyi fi soxna su tollub diggante dañuy xaar bu doom ja juddoo indiwaale bakkan doon bu andiwaalul bakkan du doon waaye ku njëkk a faatu baayam dootu ko doon nati euh, kii moom day laaj mu ne ndax bokk na ci xaqi néew bi ñuy laaj lataa ñu koy jullee ñuy laaj ba xam ndax euh, ameeloon na kenn bor wala déet waaw loolu day yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa alihi daan na ko def ci njëlbeenul islaam daana def bu nit faatoo mu ñëw ne ndax bàyyi na bor ñu ne waaw ndax bàyyi na lu ko mën a fay ñu ne waaw mu jullee bu ne ndax bàyyi lu ko mën a ñu ne deet mu ne jullee leen seen waay man duma ma jullee borom bor loolu daan na ko def mas na koo def bis ci nit benn saxaab yi daan ne ko ñëwal jullee ko islam màggaddu bor bi mu daal dem jullee ko waaye ginnaaw bi nag daa wax ne bi alal bi lislaam dëgëree am doole la wax ne ku faatooti te bàyyi bor man maa koy fay ku faatooti bàyyi bor man maa koy fay léegi nag bu bàyyee alal ak njaboot doon kon dañuy dégg ci loolu ne kon jërut ñuy laaj waaye nañ bàyyi xel daal bu nit faatoo te bàyyi ay bor it du tee nañ ko jullee nañ ko dafa lépp waaye nag njaboot ga nañ xam ne bor yooyu bala ñu ko miraas nañ ko fay bu fekkee bu ñu fayee alal yi jeex kenn du miraas dara noonu lañu war a def léeg-léeg gis nit ko wax dañ naa la bu ñu fayee bor yi euh, ndono yi duñ doon dara waaw mooy seen bay daa baywut dara dañuy génne bor yi bu desee dara nag loola mooy la ñuy doon bu dara doon waru leen amul lu ñu doon kii moom day laaj mu ne ndax daga na ñu jël ab cër ci ab néew jox ko ci jox ko koo xam ne mi ngi dund ngir mën koo xet lu mel ni kii xol walla rein wala yu demee noonu waaw loolu day boroom xam-xam yi na nañ ko waaye ci kaw ay sart boo xamee nit ki àgg na ci foo xam ne daal dootu dund te it nañ ko tàggu moom na wax na joxe ndigal laata muy faat ne man kat su ma faatoo sama cër joxe naa ko ngir yàlla wala ñi koy donn bi mu faatoo ñoom ñu juboo ci waaye daal jékki-jékki jël ko moom yëgutoon joxewu ci ndigal ay bokkam andu ji loolu daganut te it bu mu doon lu ñuy jaay doomu aadamaam ak màggaayam ak darajaam weesoon di jaay dara ci moom bu dee lu ñuy mayee te ñoom ñu ànd ci su boobaa dagan na ndax dañuy jiital kii dund àqam lañuy jiital ci àq ci faatu te loolu it saraxa bu baax la ndax bu fekkee dañ koo dañ koo jële ci moom jox ko kenn muy dund di jariñu loolu aw yiw la ci moom boo xam ne lu waaj a def ci lu baax wàllam dana ci génn ndax bokk na ci ñi ko xetli ba a wéy di dund kii moom day laaj mu ne kiy julli kañ lay yéene ak fan lay yéene yéene moo jëf ñooy tàmbali ànd maanaam buy kàbbar dañuy wax ne yéene ji moom day jiitu ndax li ngay jóg di ko def la nga koy jublu mooy yéene ja waaye nag booy wax allahu akbar ci ngay teew lu yéene ji jamono yi sa làmmiñ di di kàbbar kàbbar armal jamono yooyu la sa xol di fas ne dangaa fas yéene julli julli sàngam kii moom tamit nee na am na ci yenn ci nit yu nekk Europe yoo xam ne buñ dee togg dañ ciy defaale sàngara mu ne kon ndax dagan na ci ab jullit muy lekk ci ñam woowu ànd ak ne nag nee na buñ ko dee togg luy màndale day demale maanaam bu ñu ko tegee ci taal bi di ko togg day mel ni tàngooru day yóbbaale dangar ji doon màndale sàngara bu ñu ko xasee def ci aw ñam ba mu jaaxasoo moom ñam wa yàqu na togg googu du du ci jeexital li ñuy wax ni bu fekkoon te dañ ko dindi njëkk ñu koy def ci ñam wa ba ba dindi lay màndal mu nekk vinaigre su waa dagal waaye bu fekkee dañ ko ci def mu jaxasoo moom dañuy wax sell ab nen boo ko baxale woon sàngara bu ñoree nen ba yàqu na nen ba su sobe la ndax am na bën bën yu sew yoo xam ne ndox ma dana ci jaar dugg ci biir nen lépp lu ñu toggee sobe ba mu ñor ca loolu sobe la kon toquk sàngara bu ñu ko defee ci cin cin lépp sobe la loolu mat a bàyyi xel kii moom day laaj mu ne ndax am na xeeti mbaam yoo xam ne dagan na ci ab jullit mu lekk waaw li ñuy wax mbaam àll dagan na mbaam àll mooy rab yi mbaam yi nga xam day am ay rëdd Sénégal yëgu mu ne am na fi waaye am na ci rëkki Afrique yi moom am na yu mu am loolu moom lekk ko dagan mbaam kër yii nag moom daganoon na ay jamono waaye xaybar xareb xaybar ba la yonentu ay salaam xëy wax ne araam na ba faw ci la kon mbaam sëf yi dafa xaraam ak yi ñuy tudde ay mbaam xuux nag mbaam xuux yëpp dañoo araam mbaam xuux yi dëkk ci kër yi ak mbaam xuux yi dëkk ci àll bi am na loolu ne ci àll bi mbaam xuuxum àll la tudd donte ñii dañ ko tudde ngara ñii di ko tuddee mbaam àll te du mbaam àll moom mbaam àll mooy li ay rëdd loolu mbaam xuux la boroom xam-xam yi dañuy wax ne ci arab arabiya mbaam yooyu ñoo fa amoon bi aay bi di wàcc mbaam mbaam yi mbaam xuux yi ne ci kër yi arab yi daawul ku yor seen biir kër yooyu moom lekk lekk leen daganu dara ci ñoom daganul waaye mbaam àll yi nga xam ne nag ñoom ay rëdd moom kooku jàpp te rendi ku rendi bu dëppook sharia sañ nga ko lekk kii moom nee na ku ku denc jigéen joo xam ne dafa ëmb dafa tollu ci ab diggante euh, ndax da koy xaraam ba faw wala déet xëy na dafa ëmb ci bàyyi ko ci beneen góor mu ñëw takk mhm. bu fekkee ne dafa ëmb tem joteeg moom waaye fekkee dañ koo fas rek mu yëg ne soxna si da ëmb ñu fecc ko su amee doom mën nañ koo ko may fu mu amee doon rek laabu lu ko mat waaye bu fekkee nag ne dafa ëmb ñu may ko ko mu jaxasook moom ñu door a yëg ëmb bi sëy bi dañ ko tas moom dañ koy dind ndax sëy baaxut léegi bu fekkee ne moo ko ëmbaloon su amee doom mën nañ ko ko mayaat waaye nag nañ xam ne doom jooju moom doomi njaalal kenn du ko jox sant góor gi bokkul ci njabootam allahuma bu bu bu bu dee jaxasoo yaayam mu di ko nàmpal moom day nekk bàyyi nàmpaleem waaye ci mbokk jotewuñ dara bu fekkee nag yeneen góor a ko ëmbal ñu may ko ko moom mu joteek moom dañ koy tas te day nekk mu abadu tahrim maa ñoom ñaar bu àddunay tukki dootuñ dencante kon dañuy xàjjale bu fekkee ne moo ko ëmbaloon wala keneen a ko ëmbal bu dee keneen mu arab nag bu faw bu dee mooma nag dañ koy tas bu amee doom mën nañ ko ko mayal waaye ñu bàyyee xel ne doom jooju moom bokkul ci ay doom yi mu yégal ci njabootam moom góor gi hmm. kii moom day laaj mu ne ndax dagan na ñuy lekk nag woo xam ne dañ koo nàmpale meewum doomu aadama waaw doomu aadama am soowam du sobe dara nekku ci ci masab Malik sax ñoom ak jur gu lekk sobee du ko tee dagan jàllaala lañ koy tuddee waaye du tee mu dagal ñoom sañ dañoo lu lekk sobe du tee sañ nañ ko lekk kon euh, mala bu nàmp soowum nit du tee mu nekk mala kon bu faatoo àtte mala moom la yor jërëjëf sëriñ bi kii day laaj mu ne koo xam ne dafa fekk imaam mu nekk ci sujjóot bu mujj bi ci rakka bu mujj bi mu ne kooku su imaam bi sëlmalee ba muy jóg di fay ndax day kabar kabaru armal ak ndax day dafay day day liqaamaat walla déet xam nga li ko war bu fekkee def na ko mooy saabu bu nit dikkee ci jàkk fekk ilimaan ci julli gi day kabar kabaru armal fekk ilimaan fa mu nekk su ko fekkee ci sujjóot bi mujj day kàbbar kàbbaru xarmal kàbbaraat beneen kabar ngir sujjóot bi sujjóot ànd ak ilimaan ilimaan siggi mu ànd ak moom siggi ilimaan di taaya mu ànd ak moom taaya bu ilimaan sëlmalee mu jóg wax allahu akbar goo xam ne ngir jóg gi la waaye du kàbbaraat kàbbar xarmal ndax tàbbi na julli gi ba noppi du liqaam ndax liqaamu ilimaan yi yóbbaale na ko day jóg rek daal kabar ngir mel na kuy tàmbali julli jàng faatiha ku saar waaye nag kooku na xam ne an amul amul julli mbooloo ndax ci mazhabu Malik boo amul ci julli gi lu mat ab rakka amoo julli mbooloo kon àtteeb kuy julli moom kenn kooku mën naa jiite keneen keneen mën naa ñëw roy ci ginnaaw mu wér bu fekkoon nag daa am ca julli gi benn rakka ilimaanam sëlmal muy àggale kooku matul ilimaan ndax maamum la ba noppi bu nit royee ci moom kooka julleem lu baax Euh, kii nee na jumaa ji moom bu dee ajjuma dañuy nodd benn rek bàyyi mu ne ku ñëw ci jumaa ji ginnaaw bu ñu noddee mu fekk kuy wax ci kaw minbar bi waaye nag xamul ba xam ndax day bayaan wala mooy imaam bi xutba ndax mën naa julli ñaar raka nuyoo ko jàkk ji wala déet waaw xam naa li ma njëkk leeral de mooy lu tax jàkka ji ñu nodd genn benn nodd diine ji dañu koy royee ci yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam mi waxoon ne sallu kama ra'aytumuni usalli moom nag àjjuma dañ doon noddu xëy na ci jamono yonent bi genn nodd la woon waaye ci jamono saxaaba yi la sayyidna Usmaan yokk geneen nodd goo xam ne saxaaba yépp dañ ca ànd ak moom te al ummatu la tajtamiu ala dalala ñépp ànd ci ak moom ñu gis ne loolu lu wér la kon dañuy nodd bu waxtu wi jotee ngir yëgali wax bi la bu njëkkoon sax nodd ji daawuñ ko nodd jàkka ji ci jaba lañ ko doon nodde ngir waa jab xam ne tey la ajjuma ñëpp mën a dellu ci kër yee waaj ñëw julli bu ilimaan ñëwee nag ñu noddal damaa jàpp nag ne bu ñuy ab minbar ñuy fi ñuy xutba ilimaan rek moo fa war a toog nag waaye wut kuy def bayaan man faa toog nit mën a ñëw di jaawale ilimaan la wala kuy def bayaan la loolu jàpp naa ne mën naa ñàkk ginnaaw gi daf bayaan moom li ñu soxla ci moom nañ dégg kàddoom rek kooku kenn waxut fenn ne na toog ci commune bar kon mën naa toog ci suuf wala mu toog feneen li am solo mooy na na rajo yi jot ñépp mën a dégg lu muy wax mooy tax saa bu ñu gisee ku toog ci commune bar ñu xam ne ilimaan la xam ne julli dëgganatul loolu jar naa bàyyi xel loolu hmm. kii moom day laaj mu ne lan mooy àtteeb koo xam ne euh, saar bi mu jàng ginnaaw faatiha ci ràkk bu njëkk bi moom la baamuwaat ci ràkk bu ñaareel bi loolu de dañ koy sib ci masab bi dañuy sib wenn saar nga jàng ko ci rakka bu njëkk jàng ko ci rakkab ñaareel ku ko defee nag julli ko baax na moom rawatina bu dee koo xam ne wenn saar dong la mokkal mën na ko waaye nag boo mokkalee yeneen moom dañoo bëgg nga jàng aw saar ci rakka bi jàngaat weneen dañoo bëgg it rakka saar wi nga jàng ci rakkab ñaareel ci ni alxuraan toftaloo na mujj maanaa boo jàngee suuratul falax ginnaaw faatee ci rakkaab bu njëkk rakkaab ñaar nga jàng naasi waaye ku jàngoon suuratul naasi nag ci rakkaab bu njëkk nu muy def kooku mu jàng ci rakkaab ñaareel falaxi moo gën muy baamu naasi ndax siggee moo gën a moo gën a foor sibug juutal gi kon li gën mooy saar yu féete kaw ci ñu alxaan toftaloo mooy jiitu ci ñaar rakkaay waaye wenn saar nag nga jàng ko ci ñaari rakka yépp moom bu dee ci jullit farata dañ koy sib kii moom day laaj mu ne lan mu gën ci góor goo xam ni mu kallaf la mooy mu toog ci kër gi jiite ak njabootam soxnaam ak i doom ak i demee noonu wala boobu mu dem ci jàkka ji jullee fa xam nga dem jàkka ji moom moo gën lépp ndax bu dee kër gi jigéen ñi julli mbooloo du fa ci ñoom jigéen ñi sartuñ ci ñoom julli mbooloo gone yi julli waru leen kon moom na leen digal fexe ba ñu julli leen su ko def moom mu dem ci jàkk ji muy jigéen ñoo xam ne bu leen wanee ginnaaw duñ julli mu xam na leen ci dëgër bopp goo xam day mën a ñëw jiite leen julli waaye saa yi leen wanee ginnaaw duñ nag mu toog jiite leen julli ànd ak ñoom julli mooy gën nag mu dem ci jàkk ji su boobaa waaye nag war leen mën a yar ba saa bu gi jibee ñu xam ne yàlla leen di woo kenn ku ne jàpp dugg ci barab julli su ko moom mu dem ci jàkk ja kii moom day laaj mu ne ndax dagan na ci ab jullit muy jàng ci école école wala jàngukaay boo xam ne ñi koy financé mooy ay góor jigéen te drapeau góor jigéen ñi sax moom la ñu samp foofu ca jàngukaay bi. waaw bu fekkee ne jàng ga dey am na lenn lu muy séq ci jëmale kanam mbirum góor jigéen du dagan moo xam da di publicité wala da leen di encourage ci lay nekk ndax loolu mun kar la boo xam ne kenn wuru caa jàpp ñëpp dañoo war ci li koy soppi kon bu leeree na ñoom te ñaaree bu ñu tabaxee dara dafa seeni màndarga dañuy bëgg di publicité nit ñi dafa ñëw ngir tàmmool leen loolu ñaare it wolof nee na ku ëmb sa sanqal ëmb sa kersa kuy jàng fu mel noonu ñu lay dimbale boo tuut boo gisee ci ñoom sikki doo ko mën a wax moo tax lu mel noonu moom ab jullit waru caa nekk ndax ma ngi leen di jàppale ci bàkkaar ak mooy yàlla te loolu daganut wala taawanu ala lifmi wal udwan kii moom day laaj mu ne koo xam ne day jàng al wérdul maaxuuz mu ne ndax sañ na koo dagg dem jaay ab client wala yu demee noonu ñëwaat àggale wérdu bi boo ko daggee def na lu ñaaw te du ko àggale waaye da koy tàmbaliwaat wérdu maaxuuz day su ko dagg ngir yu mel noonu wérdu maaxuuz li mu nangu mooy ay kalimaat yu néew te nekk farata sa way jur di la woo wala sa kilifa mën nga ko wuyu ne ko damay wérdu bu nit doon jaaxale di laaj man nga ko tontu ay baat yu gàtt te doon lu yitteel may nañ waaye nag bu dee jaayeen jënd yeen li gën ci ab jullit bu dee bay wérd mu toog ci barab jublu xibla teewulu ndax baat yi muy jàng ay maanaa la yoo xam day màggal yàlla di ko sellal waaye waxuñu rek mu yor ko làmmiñam di wax fekk xel ma ne ci yeneen te fekkee nag ma ngay jaay ak jënd wala bu ko neexee dab ko na bàyyi ba am waxtu wu doy ndax xam nañ ne bu dee waxtu yi ñuy wérd yaatu na bu dee suba gi njël lay tàmbali bu la leereen suba teggee da ngay occupé yow teela la yow jàpp wér di maa xoos door julli suba mën koo def bu dee bu takkusaan bi dem na ba gee su fekkee ne diggante takkusaan timis xat na ci yow bàyyil boo sëlmal timis nga jokk ko ci waaye boo ko xasee tàmbali moom fexeel ba mu jokkale ko ndax yàlla ngay deyaleel di ci rax yi fi àdduna nag duy teggin te it du yar ci diggante jàmbeek boroomam euh, kii moom day laaj mu ne dafa am waajur woo xam ne dafa dénkaane woon laata muy faatu ne këram gi bu ko kenn jaay nañ ko fi bàyyi ñépp bokk ko dëkk fi nee na ginnaaw bu buñ demee ab diir nag am ci doom yi ku màgg ne da koy jaay waaye nag yi ne dañ ne moom dañ ne li seen baay waxoon la ñu wéyal seen baay wax na yàlla wax na yàlla moo ne bu nit faatoon nañ ko miraas mm-hmm. te lépp lu ay nit bokk te mënuñ koo séddoo dañ ko war a jaay buñ ko mënee séddale nag nañ ko séddale ku ne jël wàllam buñ ko mënta séddoo ñu jaay ko ku ne njaxul si wàll doomu war a bàyyi xel lool looy yéene yéene sa njaboot ak looy bëgg bëgg ñu daje benn barab fexe ba seeni xol nekk benn moo nga daje leen ci benn barab te duñ tuddante léeg-léeg nit mën a wax loolu njaboot gi ne ci kër gi waaye kenn tudd sa morom jàpp naa ne kenn waxut ne nañ fi bàyyi kër gi ñu bokk fa dëkk waaye doon ay noonu te ay nit mën nañoo soree waaye teewul ñu am jàmm kon li am solo mooy bu nit faatoo nañ def yàlla santaane ndax loolu moo wax léegi ay doom mën nañ koo dégg de jëfe ko daan ne suñ bàyyi waxoon nag kon duñ ko jaay waaye ñoom ñooñu bu ñu faatoo seeni doom ñëw di sëti góor ga ñoom xamuñ góor ga kenn ci ñoom mën na xëy jaay kër ga lekk xaalis ba te la ko waral dañ fa bàyyi woon wala ñu dem ba àgg ba mu àgg ci foo xam ne duñu xamati nuñ koy séddalee ñii faatu bàyyi doom ñii faatu bàyyi doom ñi faatu benn bàyyi benn wala ñaari doom mu dem ba lëj-lëj goo xam ne duñu xamaat dëgg-dëgg ku moom kër gi yooyu yëpp nag ngir mucc ci bu jullit faatoo nañ ko miraas ku ku ne am lam ci am ndax doomu adama yi yooyu yoru leen yàlla bind ñi moo leen yor bu fekkoon ne nit ki li muy doon na ci bàyyam ci lay dunde kon ñi dund du bari yooyu mën naa bàyyi xel euh, laaj bi ñuy mujjee day laaj mu ne ndax day war ci maamum muy delloo sëlmal ci imaam ak nekk ci wetam waaw sunna ci sunnay julli la bokk maa moom day sëlmal ñaari yoon walla ñett am ilimaan moom dañuy wax ci masub malik benn yoon lay sëlmal geesu ci wetu ndeyjoor joor ci génn ci julli gi yéene ci nuyuwaale mbooloo bi leen jàmm maamum ji nag day sëlmal wetum day joor ci génn ci julli sëlmal ci kanamam yéene ci fay ilimaanam bu fekkee ne am na ku ne ci wetu càmmooñam koo xam ne am na ci julli gi lu mat ab rakka foofa it bëgg nañ ma moom geesu foofu ne asalaamaaleykum liñ gën a bëgg nag mooy sëlmal bu mag bi mooy asalaamaaleykum rek lay doon moom yi ci des yëpp dañoo bëgg mel noonu ndax asalaamaaleykum geesu asalaamaaleykum asalaamaaleykum waaye bu ne woon asalaamaaleykum génn ci julli gi ne ne salaam ne salaamun aleykum ba tey baax na salaamu taxli rek la jur soppi moom assalaamu aleykum la ñuy wax kenn du ko soppi waaye sëlmal bi ngay delloo sa ilimaan wala sa sa mbokkum maa moom boo ko soppee bu dara donte nag daf ko ni nga defee sëlmalu taxlil moo gën incha euh, kii day laaj mu ne lon mooy àtteeb jëfandikoo garab yi nga xam ne garab ngir faj soj la ci bëccëgu weeru koor bi waaw bu fekkee ne lu ñu def ci bakkan la tudd nañ ko mooy lépp lu ñuy toqal bu dee liquide la bu fekkee du liquide nag nga xam ne du jàll moom waaye lépp loo xam ne liquide la boo ko defee say bakkan ko ci sa sëg boli ci bëccëgu ramadan dañ koy tare saa boo ko ci yëgee koor ga yàqu kon dee ko def guddi su mënti ñakk nga xam ne bëccëg rek nga ko mën a def te soj mi metti na metti goo xam ne mënoo muñ kon boo ko yëgee xamal ne bis booba dog nga man nga lekk la ca des bu weeru dee nga fay ko ndax kuy faju la ngir wére di su boobaa waaye su fekkee nag ne danga koo def te yëgoo dara ci sa bool yi moom jàppal ne koor gu baax na euh, kii tamit day laaj mu ne ki nga xam dafa am jafe-jafe yu noyyi lu mel ni ko am asthme wala yu demee noonu mu ne ndax mën naa jëfandikoo pompe yi ci bëccëgu weeru koor yi waaw pompe yi loolu la ci boroom xam-xam wax pompe matière bi ci nekk day jàll luy dundal la saa ko nit ki jëfandikoo kooram da yàqu kon ki yore asma saa boo ko kiri asma daaneele ba mënu ko ñàkk jëfandikoo da koy jëfandikoo dog kooram su demee nag ba nga xam ne nii da koy dëkke nga xam ne bis bu set dana ko def ñaar wala ñetti yoon moom te mel ni pexe amu kooku day jàpp ne war wàcc na ndax daa wéré di ba wéré di goo xam mënut a woor moom ñu yore estomac wala ñu yore wéré di yoo xam ne fu ñu toll dañuy naan ndox ñu bokkaate ndax daa bokk ci sarti koor nga man ko ki nga xam ne ni fu mu toll nag day faju te li muy fajoo day yàq koor te mënta tàggook moom dañuy wax ne koor la koy wàcc waaye saa bu fekkee léeg-léeg la nag moom saa bu ko defee na pomp ngir faju bu ëllëgee mu fay bis booba bis bi ngir faju mi ngi mel ne ku wér dem jël garab koor ga dagg na kon la des ci bis moom duñ la forcer ci da ngay jàpp la des bi ndax li ngay dog yoon moo la may nga dog kon subaa sañ ngaa jàpp lekk la ca des waaye nag xam ne bis booba da nga koy fay fay rek moo la ci war nag ndax xotti woo war may ramadaan ngànt moo tax nga dog euh, laaj bi ñu ci teg rek mooy julli naafila muy naafila yi koor bi koo xam ne dafa ñëw fekk imaam nekk ci ñaareelu ràkka bi nu muy fay ràkka bi ci des waaw bu fekkee ne moom julli na farata ba noppi bu fekkee jullul farata moom na génn jàkk ji dem julli ji farata feneen bu noppee ñëw ñëw dugg ci julli bi ànd ak ilimaan ràkkab ñaareel bu ilimaan sëlmalee mu jóg indi rakkaab rakkaab bi ko imam rawee jàng ci fa teg saaru gàtt ngir mën a dab ilimaan ca rak beneen beneen beneen beneen tarwixa ba am na it boroom xaw yu wax ne ki dugg ci jàkka ji te julleegul gee fekk ñu naafi la am na pexe mu mën a def mooy mën naa dugg ànd ak ilimaan yi ñaari rakkaa yi waaye yéene ci moom julli farata nga xam daa ànd ak moom rek làng waaye li ñu tuddee salaatul muhazaat lay doon day jàng faateeku saar imaam sëggee mu sëgg bu si bu sëlmalee mu jóg jullee ñaar ràkkab nga xam day mel ne mi ngi ci biir julli gi fekk julli boo xam la yor loolu am na fuqaa yu ko daganal donte li gën a jàpp ne mooy mu génn jàkka ji julli bu yëgee ne ñu ngi naafila bu jàkka ji mu julli ci bitti balaa ñëw waaye bu duggee nag fekk ilimaanam nekk ci rakkab ñaareel day ànd ak moom rakkab ñaareel bi bu sëlmalee mu fay rakkab bu njëkk bi door a dabe ji moo tax li gën mooy na ci jàng saar gàtt balaa ilim balaa rakkaa benn bay fasuwaat di ko rawaat euh, kii moom day wax ne lan ngay laabiree ñi nga xam ne duñu woor ba noppi di lekk ci kanam nit ñi maanaam duñ nëbb na ñoom wóoruñ daal waaw xam nga am ngànt wala amuñu ngànt ci lislaam du wor ma duy teggin sa moroomu jullit woor ngay lekk ci kanam gis na mag ñu baax ñi ridwaanulaahi bokk na ci seen mën yar boo nekkee ci kër jigéen ña fa nekk jigéen ñi wóorul kenn du xam ne wóoruñ bu ñuy jëfandiku kenn du ko gis ndax ñu ngi bàyyi xel gone yi magum jëmu ñu gis la ngay lekk mënoo leen leeral tax ngay lekk ak yu demee noonu bu duy loolu lu ci gën nit ku am ngànt ba wóorut buy lekk na ko nëbb moo tax di jaay ay ñam ci pénc mii mbokk yi du warmal sëriñ bi rom pénc mi ñu jaay ay ñam nit ñi jaay ay lekk ak i naan ci bëccëgu ramadan loolu dooy teggin nañ warmal sëriñ bi mag bi nga xam ne lu lu ko dal ci àdduna bëgg a taxawu ndigal yàlla moo ko tegoon ba samp lii mu samp kon nañ ko ko war maalal tabaxal yàlla néeg bu réy nii ñu ci jàmm yàlla ci pegg bi ñu fiy xëtt ndigal loolu rafetul nañu bàyyi xel mbokk yi alali àdduna jëru ko bëgg a jaral am njaay jërul loolu euh, kii moom day laaj mu ne ndax dagan nañu yeexee miraas ak bu yeexe gi amee kan moo yor responsabilité bi waaw miraas nag léeg-léeg yeexe gi du mën a ñàkk ndax mën naa am ca alal ja lu ci aju lu lijjantikuwut su boobaa man gis na ko yeexe xëy na li ma bàyyi xel mooy li nit ñi wax naan nit ki bu faatoo féeg miraas suñ ko du tàlli loolu nit ñi dañ koy wax rek ak di ko xëppee nañ ñi ngir bëgg ñu gaaw a miraas ndax yeexe miraas day jur léeg-léeg lekk alali jàmbur rawatina bu fekkee ne ki faatu bàyyi na ay gone yu ndaw nga xam ne ay jirim lañ te lekk seen alal moom musiba la boobaa gaaw a miraas ku ne jot walla moo gën ndax bu ñu ko defut léeg lekk ak kër lañ fi bàyyi am ñu dëkk ci kër ga am ñu bokk ci ñi doon dëkk feneen dëkk feneen su boobaa yow mii dëkk ci kër gi fi ne liy tax sa dëkk fi jaar yoon mooy ñeneen ñëpp ñëw ne la may nañ la nga dëkk ndax ki faatu bi mu faatoo la ak moomeelam tegg ko ci kër gi léegi ñëpp ko bokk kon benn ñu miraas ko walla ñu tëj ko wala ñu di ko luyee ba bañ koy miraas ndax léegi ñëpp ci yem léegi na nga gis kër goo xam ne ñenn dañ ci dëkk fukki at ak nangam ñenn ñi dëkk feneen te miraasaguñ loolu loolu bu fekkee nañ ña dëkkut mayewuñ àq la joo xam ne danañ ko laaj bu ëllëgee moo tax kon lu ñu gën a mën a gaaw miraas bu bu benn gàllankoor amut mooy li gën bu ca alal jirim nekkee ñu teel koo génne bi ci desit feeg ñuy miraas lépp lu ñu fa lekk nañ ko bind lépp loo xam ne faatoo ko moomoon bu ñu ko jëfandikoo ginnaaw bi nañ ko bind ngir bu ñuy miraas ña ko jëfandikoo ñu dugal ko ci seen wàll daa di am léeg-léeg nit faatu bàyyi yu bari magasin bi dugub ji nga ñëw di miraas ñu ne la bàyyi woon na fi nangami tonni ceeb waaye moom lañ doon xewloo ci kon ñu ngi doon lekk alal jàmbur te bu ci ab jirim nekkee donte kenn la lekk alalu jirim moom borom bi di cee ko moo tax yooyu yëpp làmati moytu mat a bàyyi xel baax a baax lu metti metti bu nit faatoo nañ dajale lam moom teg ci barab bu ñu ko mënta miraas ci saasa wala ñu bind ko ñëpp xam ne nangam la kum ne ci loxoom ñoo xam ne ma ngi say loxo bu ñuy miraas ñu laaj la loolu bu leer rek baax na. Euh, laaj bi ci tegee day wax ne lan mooy àtte bi jëfandikoo euh, xëy na cuuraay wala parfum wala yu demee noonu. waaw yi nga xam ne day am saxaar ci bëccëgu koor gi. cuuraay cuuraay de moom day yàqu koor bu fekkee da nga ñëw. tiim ko mu dugg la ñetti saxaar yi day yàq koor saxaru cuuraay ak cóola cin cin lii saxaar si jóge ci biir cin li bu ko nit ubbee tiim ko mu dugg ko kooram day yàqu ak saxaru cigarette kuy naan saxar yooyu sa koor day yàqu saxaru matt ak këriñ moom jégale nañ ko waaye yee nag bu fekkee yaa ko jublu waxuñ nag mu jékki-jékki dugg la te teyoo kooku dañu koy jégal waaye fekk yaa jublu xëcc saxaar si mu dugg la muy cuuraay li moo tax Ramadan bëccëgu Ramadan dañuy sib di taal cuuraay ci néeg yi cuuraay luy am saxar tux si mu dëgganu ci ndax boo tuxee dog nga sa koor ko tey boobaa da ngay fay kafaar euh, kii moom day laaj mu ne lu tax li ëpp ci nit ñi euh, du ñu jox cër dëgg-dëgg euh, sàpp yi daal maanaam sàpp yi lu tax nit ñi duñ ko fonk di ko yamaleeg ak ñëw taxaw fi nga war a taxaw ak ginaaw ñu fàttali tuut tamit ci ngëneelu yamale sàpp yi balaa ñu julli waa xam nga doomu aadama lépp loo bëgg mu di ko jaarale yoon da nga ko cee tàggat fii ñun daa bokk ci suñuy manqué manqué bu ñuy jàngale fiq dañuy jàngale atte yi nazariyan théorie bi la ñuy jàngale mais duñ jàngale pratique dañaa la dañuy sàppe dañuy rukkoo suy du duñ la wax nu ñuy rukkee duñ la wax nu ñuy la wax nu ñuy sàppe dafa baaxoon nag ilima jàngaleket bi léeg-léeg mu jóg taxaw jàngale nu ñuy sàppe ndax yonentu yàlla Muhammad alayhi salaam daan nañ li xam ba noppi mu dugg ci biir sàppe yi di yamale yamoo leen bu leen wuutee ndax day tax yàlla wuutal seeni xol bu leen bàyyi diggante seytaan dafay jaar di leen jaxase nga xam day bëgg mbagg ak mbagg di la wax ne la testeurs yi la ñuy tàmbulee testeurs yi na tolloo léegi nag ay jaal yu bare nga yées ki bàyyi lu bari ki bàyyi ci wala ni ñuy def jàkk xam nga jàkk fi ne tey bu ilimaan di kii fi ilimaan di taxaw ci ginnaawam mooy fi gën ci jàkk ji mooy sàpp si gën ci sàppe la fa tàmbalee jëm ndeyjoor jëm càmmoñ ba mu fees sàppe ci digg lay tàmbalee bu sàppe su njëkk si feesee fii sàppe su njëkk si feesut kenn wërta sos seneen maanaam ku ñëw rek da nga war dugg ci sàppe sos bu feesee ba kenn xaju du fa nag ñu jël sàppe ñaareel tàmbalee ko ci digg bi moom ci ginnaaw ilimaan ñi jëm ndeyjoor jëm càmmooñ ba mu fees beneen sàppi ñëw waaye jàkk yi day gis ki ne fële am koo xam ne day bëgg lu yomb day ba ci bunt ba bëgg fu feex am koo xam ne day bëgg bu sëlmalee mën a gaaw a génn waaye loolu du sunna sunna mooy nga ñu dugg ci biir sàppe jaraloon na yonentu ay salaam ñu liqaam ba nopp mu di ko di jubbanti loolu it baax na ilimaan di ko def wala muut ku koy defal fexe bala ñoo bala ñoo taxawal na sàppe yi yem waaye léeg-léeg gi sàppe yoo dëng lool bi jëm nii bi jëm nii daa war a jekk yépp tolloo yépp sësaloo ñu door a tax ñoo doon taxawal julli loolu ci julli gi la bokk fa inna taswiyata sufufi min tamaami salaa loolu ci xadis yi sax yi la bokk yemale sàppi da bokk ci li tax julli gi mat ndax day mel ne ku ko mën a def te defoo dañ la jàpp ne julli gi loo xam ne bu ci amoon lay gën donte nag boo jëlee julli ga baax na boo ñëwoon dugg ci jàkk ji beru fere yow dong yi du dee julli nga waaye nag def nga lu ñaaw ndax dañ laa sant nga ñëw ci mbooloo bi dañ lay sant nga ñëw ci mbooloo mi jaxasoog mbooloo mi loolu jàpp naa ne lu mat a bàyyi xel la ci ñii taxawu jàkk yi di ci sonn nañu fexe daal sàppe yu njëkk yi na fees ñu door a nangu keneen taxaw feneen loolu bu ñu ko defee rek dañ dimbali nit ñi waaye fii ñu ngi bàyyi ku ne toog fenn mooy waral bu ñu taxawalee kaw ko ne man fii ma gën a jege kaay dugg si am na ñoo da nga leen woo ñu dugg sàpp ñu bañ te sàppe su la jiitu ci sàppay góor yi moo gën sàpp ci ginnaaw saxaaba yi dañ ko daan njëkkante am na ñoo xam dañ wax saa buñ jullisee sàppe su njëkk raw leen dañuy jàpp ne keroog perte nañ loo xam ne mënuñ ko dabooti yow mu jàpp ni la ñu ne la kaay dugg nga ne baax na yépp nag bu xam amee euh, jàpp naa ne du wàññi dara bu ko defee ci jàngale it ñu fexe ba di jàngale waale yooyu daa faral di wax ne fi ne ay jàkka ji bu ay nit rukkooyee façon rukko bu ne ngay gis ñi dañuy sëgg bi bëgg laal suuf ñi daanaka duñu sëgg ñii da def bu normal loolu li ko waral mooy dañ la naan rukkoo da ngay sëgg jàpp si bati boobu yem foofu am na koo xam ne xam na loolu ci lu kéemu waaye mënugu ko def kon fexe ba man ko daa bokk ci njàng bi yooyu bokk na ci loo xel mbokk yi jàngalekat yi ñu ko bàyyi xel mooy waral ak bu ñu sujootee fan la seen jë war a tege loxo yi ak batiwo bi fan yooyu yëpp ni mu war a mel mën nga ko wax nit waaye feeg jëfandikoo ko du ko xam jërëjëf yaakaar naa loolu mooy laaj bi fi jotoon a kon ñi ngi delluwaat di sant bu baax sëñ Mbacke Abdourahman ci leeral yi mu indi mu aju ci laaj yi ñëwoon mu leeral ko leeral gu am solo lool yàlla na ko yàlla fay te dëgëral ko te kattanal ko ba mu mottali naal yi mu naalal lislaam naalal ko yoon wi kon ñu ngi koy sant bu baax ci turu daayira Muqaddamatul Xidma kon suba incha allahu ñu ngi fas yéene waxtaane alqasru wal jam'u fi salaa euh, atte yi ci wàññi julli ak boole julli euh, docteur Abdoul Ahad Sané moom moo ko war a def suba ak jàmm ci ginnaaw takkusaan euh, nu xayyi ixwaanana almisriyin alladina xadaru maana hadihi aljalsatu almubaraka wa ala musharakatikum maana fi faaliyati hadihi جلسات العلمية القيمة سائلين الله عز وجل أن يجعل لقاءنا بكم لقاء مباركا وأن يتقبل منا صيامنا وصيامكم وقيامنا وقيامكم وأن هذه الجلسة من بين الجلسات التي تنظمها دائرة مقدمة الخدمة التي تشرف على شؤون المسجد الخديمي وهذه الجلسة كانت مخصصة للفتاوى وهي عبارة عن أسئلة ترد من المستمعين والمتابعين لهذه الجلسات ثم نختار واحدا من الباحثين والعلماء ليجيب عنها واليوم أجاب عن الأسئلة فضيلة الشيخ الإمام سرين باك عبد الرحمن وهو فقيه وأستاذ أديب شاعر معروف له جهود كبير في جهود كبيرة في نشر العلم في طوبى وما حولها بارك الله فيه وبارك الله فيكم أيضا wa jaalakum fi ardina tuqimuuna indana iqamatan tayibatan mubaraka wa rujuan mubarakan ila awtaanikum wa ila baladikum misra alxabib barakallahu fina wa fikum wasalaamu aleykum wa rahmatullah yaa xayra dayfin ataa bil bishri wal madadi أهلا وسهلا وترحيبا بلا عدد